والقلم وما يسطرون السلام عليكم ñu ngi fi tey ci kër sëriñ Mamoun Fall mi nga xam ne moo jàngal sëñ Mouhamed Dieng mi nga xam ne moo jël ñetteel bi ci ñi gàñe ci kuréelu yaatal mbindum alxuraan muy concours bi nga xam ne mooy yaatal mbindum alxuraan euh, édition deux mille vingt le 10 mai deux mille vingt ki nga xam ne moo jàng sëñ Mouhamed Niang moo nekk nii tey jàkkaarlook ñun euh, ñu war ko laaj ci taxawaayam ak pas-pasam nan la def ba nga xam ne noonu lañ def ba mën a téye mbind mi ndax ku ne xam na ne mbind mi euh, daare cosaan yi ñoo ko yoroon waaye ñu ci bari bàyyi nañ ko ngir yàkkamte waajur yi. ak yàkkamteeg ñuy jàngale kon nag ñu di ñu di ko laaj ba xam nan lañ def ba mën a téye mbind mi ba mu agsi fii sëriñ bi salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbokk jullit yëpp mbokk taalibe yëpp di leen jaajëfal te di am mbégte lool ci ñëw gi ngeen ñëw fii di ñëwuk taraanga di ñëwuk sargal di ñëwuk tawfeex si ñun. Ahmed sunu donga ñun ñoo ko yoroon daara Baye Serigne Gueye saa borom dox nañ ko ñaan Cheikh Abdoul Ahad Gueye teg ko suñu loxo euh, ñu yor ko ba mu mën alxuraan ba ñu jàngal ko bind ba man ko manin wu rafet euh, waaye nag euh, juguñu comme na sëriñ Sohaibou Mbacké daan taxawa dongo yi ñu anam googu moom nañu yoroon ba nii nii ci daara ji ci nañu dox nga xam ne soo ko maneet ci saa si ngay tàmbalee beq ñu lay toppal ba nga am mbeq mi wér keng mbeq mu jaar yoon ñeneen toppal la ba nga bind ak yoon ñu doog lay wax ne yow kat sa rafet na ñu doog lay mën a taxawu Ahmed daal moom foofu la jaar xam naa nag <clears throat> ak mën a bindam day loo xam ne moom moom moom ci yëmam bi ko jàngalee ak bëggam tax na mu àgg fii mu ci àgg ndax euh, bi mu wàcceet ba ñu bi Ndakaaru teewul ma ngay bind di di di def rek ba yàlla dogal seen concours bii taxaw mu wax ne da cee bëgg bokk wax daanu da cee bokk mën na ko demal bi mu demee daaw yàlla dogal am nu mu demee dama ne ko bu bul toogaay demaatal rek ba yàlla defal ko ndam lii mu ko defal waaw kon sant nañ ci baax a baax tarik la xam naa ne daanaka ci leeral mooy sargal gi nga xam ne dañ koy sargal rek ñett ñi nga xam ne ñoo jël concours bi sëriñ daara yi nga xam ne ñoo leen jàngal ndax ku ne xam na ne buñ mënee jël concours bi tey eh, sëñ daara yooyu leen jàngal ñoom la léegi kon ci gàttal sëñ bi nan ngay lan ngay wax ñi nga xam ne dañoo jàpp ne mbind daanaka mënees na koo bàyyi wala dañ koo sàggane woon wala ñu gis ne comme téere yi am na léegi daanaka mbind mi amatul solo bañ soññee ngay def ci ñoom. waaw waaw moom day ñu ngi gën a soññee bépp sëriñ daara ak bépp ndongo daara di la wax ne mbindum alxuraan mm, xëy na bi sa bi saa borom dogalee nag sang bi taxawal lii mu taxawal sëriñ ci la dongo yu bari dog di jaajuwaat ndax itam su fekkente ne ab dongo nga nga bind nga mën a alxuraan mën ko mbind mbind mu rafet ba noppi war taxawal sa àdduna loo xam yaa ko sa bopp. loolu dana metti su fekkee nag léegi yàlla dogal na sa mbind mu rafet nañuy xool defar la concours nga gañe ko ñu ne la yow la nga waroon am ci at far la ko jox mi ngi nii jox la juróom ba juróom benn million jàppale la ko nga tabax kër mën a sanc daara kon loolu mbind mi dana développé gën jaa rafet anam def ngeen loo xam ne nii nag xëy na baaxu jëf ji saabaram mi am seere rek moom nañu koy seeral rafet na lool surtout ñi ngi koy teg seen loxo waaye nag ñi ngi ñi ngi soññi nag bépp suñu daara moom mu gën a jaaju gën a góorgóorlu gën a euh, soñu bépp donga bañ a rek gën a nekk ci waaru ëpp am pësteef rek mooy tax yi fi gën mën a jëm ci kanam ñun de loolu ñu fas yéene incha allah taala te bëgg nañ gën gën cee dem bu baax a baax nag ba ngeen gën a am ràññee incha allah taala fas ñu ko yéene. waaw kon ci gàttal yan kàddu rek ngay eh, jéemale ci eh, ki nga xam ne moo sañ ci moo sos concours bi ba pare jël alalam di ko ci def yan kàddu ngay jëmale ci moom. alhamdulilah rabbil alamin xanaa kàddu cant ak kàddu ngërëm. ak kàddu di ko ñaanal saa borom guddal fanam maanaam li ñaan fanu gudd ak wér-gu-yaram moom nañu ko ñaanal ba noppi ak yéen ñi nga xam ne yéen a koy taxawul ndax itam su ngeen demutoon mënu leen eh, amaana liggéey bi du mën a agsi fii ak xalaat yu rafet yi dugg kon Serigne sekk ñu ngi koy sant bu baax ba ci kanamu sunu borom di ko seeral sant googu njabootu Serigne Touba gépp nag eh, sunu cant gu wér-wér ndax ni mu jàppee ci alxuraan dafa yéeme te itam dañoo jàpp ne rek Touba eh, ku fi mën a nekk rek. te xëy na jàppaluwut waa daara jàppaluwut waa alxuraan amaana sax jàpp des na dëgg dëgg dëgg te yëg nañu sëriñ waxuma sax sëriñ daar yi nga xam ne moom ñoom da leen jox lii mbind mi waaye yëg nañu ay sëriñ daar yoo xam ñoom dañu fay dem di leen jàppale ci wàllu taxawaay wàllu rafetal am na dong boo xam ne ni sax sama loxo la nekkoon moom itam fii ne ci moom lay liggéeyee xam nga kon loolu tawfeeru jaato yaatu te am na taraangaam te gannaaw yàlla sëriñ kon moom ñi ngi koy ñaanal saa bu guddal fanam wéral ko lool di ko wax ne ko lii bu ko baax ndax alal jeet mu mën a toll li nga def ci yoon yàlla moom nga moom li nga deful ci yoonu yàlla moom moomoo ko kon ñi ngi ñaan na gën a barkeel te gën a amuk taw feex gën a am tey siir moom ak mboolem ñi koy jàppale aleykum salaam kon tey jii moo dëppoo woon ak bis bi nga xam ne moom lañ doon dem ngir sargal euh, sëriñ daara yi nga xam ne ñoom ñoo liggéey liggéey bu am solo bi ba tax yàlla defal leen ndam ci donga yi ñu yoroon ki nga xam ne moo jël premier ak ki ci topp ak ki ci toppaat ñoom ñëpp ñuy ay jàmbaar nga xam ne tey yàlla dogal na boo xooleen seeni point mënoo xam sax daanaka liñ ëpplantee lu néew la kon nga xam ne jiitu daa mënta ñàkk waaye ñoom ñëpp jàmbaar lañ moo tax ñu ñëwoon tey jii kuréel yaatal mbindum alxuraan ci njiital sëñ Alaaji lu Seck ak ñëm ko àndal ñu ñëwoon fii ngir sargal si eh, sang subaax baax si nga xam ne ñoom ñoo doon daan jàngal donga yooyu ñu fàttali na nag ñooñu tamit eh, liy wane ne concours bi tànneef bi dafa dafa jaar yoon mooy ñooñu ñëpp kenn bàyyiwu ci mbind boobu ba léegi ak donte li nit ñi di sàng sàggane mbind yëpp kon loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon ci bisub tey bi alterné dëppook 25 mai 2020 salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. بنعمة ربك بمجنون